ba daal di koy jox li ñuy tuddee liberté provisoire di bàyyi ndegeniku culikaay bii moo ñuy xamal ne juge Demba Kandji dafa mel nag ne ànd na euh, ci li ni mel pourtant de moom ba procès bi tàmbalee ba mu am ñetti fan dafa mës a lànk carré ne du topp nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat yi ci seen bëgg-bëgg rax ci dolli sax ci li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu décision bi nga xam ne haute cour de justice bu CEDEAO daf ko fësal jëmale ko nag ci Quotidien mi ngi ñuy xamal ne démb daal dina jël décision dinañu toog benn ay bés boo xam ne daal dañuy liñatu lépp lu jublu nag euh, ci wàllu euh, décision boobu colikaay bi di Sud Quotidien diñ ci yokk duñu xamal ne procureur général près la cour d'appel de Dakar di Lansana Diaby moom ci boppam sax moom moo daal di woo cour d'appel ngir ñu daal di liñatu lépp lu jublu nag euh, ci wàllu arrêt boobu nga xam ne waa cour bu woo dañu ko daal di fësal ndaxte procureur général moom la mu gis moom mooy dal ne waruñoo nësaxal nag waa CEDEAO CEDEAO kon kay su fekkente ne dañoo daal di fësal ab arrêt faw ñu daal di koy jàngat ci ni mu waree autolikaay bii di enquête di ñëwaat tamit ci kàddu yi nga xam ne euh, procureur général daal dina koy fësal ndaxte la mu gis moom mooy ne faw ñu respecté bépp décision boo xam ne nag euh, dafa bàyyeekoo foofu nga xam ne de euh, moom mooy ca CEDEAO les échos ne kon dafa mel ni ne kii di Lansana Diaby moom de dafa waroo ak bëgg-bëggu njëriñ gi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu yoon ak tamit agent judiciaire de l'État ak tamit ay avocat wu gi nat ñooñu ñëpp daal xalaatuñu sax ñuy liñetu lépp lu jublu nag ci wàllu requête boobu la cloche moom la mu gis moom mooy ne Lansana Diaby dafa mel ni daal ne ànd na nag ngir ñu di jox ab bayim léegi ni ku ki nga xam ne de moom mooy Khalifa Sall Vox Populi moom daal di jaaxle euh, ci décision boobu nga xam ne nag kii di Lansana Diaby daf ko daal di jël ndaxte moom dafa mel ni ne ànd na ak arrêt bi nga xam ne waa CEDEAO dañu ko daal di fësal autolikaay bi di la tribune benn nekkoon xalifa Sall mun nañu wax ne moom fu mu nekk ni daal benn tànk bi nag ma nga ca bitee ndaxte su fekkente ne daal euh, juge bi daal dinay euh, topp nag bëgg-bëggu procureur général euh, suñu maytiwulee nag Khalifa Sall dinañu ko daal di bàyyi wante colikaay bii di la soleil ma ngay fàttali ne faw ñu xaar ba ci àllarba bi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ngir xam kii di Khalifa Sall ak ñeneen ñi nga xam ne dañu leen tëjandoo loon ñoom nag fan la ñuy mujj ci wàllu procès en appel li ba des daal ñu ngi ñee xamal di Macky Sall moom ni daal ma ngay waajal boppam bu baax a baax ci moom moom ñu ngi ñee xamal ne dafa am ab plan boo xam ne li ko tax a jóg moom mooy fexe daal ba ci wàllu élection yooyu ñu daal di jàll ci euh, tour bu njëkk bi loolu sax moom moo tax ba am na ab ndaje bu mag boo xam ne démb secrétariat exécutif national bu APR euh, moo ngi ko doon amal l'observateur di ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne moom la fa njiitu réew ma daal di fësal ndaxte moom daal di ne xamle ne fu mu nekk nii gisul kenn koo xam ne nag tey ji daal moom moo koy tere ba mu jëmale réew mi kanam te liggéey bi nga xam ne nag euh, daf ko tàmbali jëmale ko nag ci ñi nga xam ne daal dañuy luubal kopparu na ko daal di wëyal ràcc dolli nee na nag amul benn pression boo xam ne day jóge fii ci biir réew mi wala boog ca bitim réew boo xam ne daal mun naa tegu ci ndoddam ba mu daal di dakkal li ni mel moom moomu di Macky Sall di xam ne daal ne tiitul ragalul boobu nag dafa fekk ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir l'opposition bi ñoom dañ koo fas yéene nag wan ne ñoom daal tamit dinañ ko defanteek moom ba mu saf sàpp ndax ci culikay bii di Walf Quotidien moo ñuy xamal ne suba l'opposition bi nag dafa fas yéene nag wàcc ci mbedd mi ñuy xam le nag ne jox leen autorisation ñàkk leen ko jox ñoom daal dinañu daal di yëngu-yëngal Dakar Times moom moo ñuy xamal ne xiif baa ngi ci biir réew mii la koy firndeel moom mooy ne Union européenne dafa am koppar gu takku goo xam ne daf koo jébbal yenn ci ay réew yu nekk Afrique de l'Ouest ñu gis nag ne réewum Sénégal dafa bokk ci wàll gi ni mel loolu nag day firndeel ne xiif baa ngi fii ci biir réew mi ñàkkum ndox gu tar gi tamit mi ngi fi te it dañoo nemmeeku sax ne bari na ay diwaan yoo xam ne nag dañuy jànkonteel ak jafe-jafe yu tar ñu wax ci mbirum Aziz Ndiaye ndax ci jolikaay bi di réew mi moom dañu koo teg loxo la ko waral moom mooy ne dañu koy tuumaal ne daal dafa bokk ci ñoo xam ne dañ doon fraude euh, jëmale ko nag ci ab diwlin autolikaay bii di réew mi quotidien di xamal kon ne Aziz moom fi mu nekk nii nag caabi féete na ko gannaaw keneen a ngi nii ñu tëjoon ko daal di koy mujjee bàyyi loolu la ñu autolikaay bi di libération di xamle euh, muy euh, Daouda Mbow te mu daal di jiite NVA di ab kërub liggéeykaay boo xam ne daal day jaay ay oto autolikaay bi di libération moom mi ngi ñuy xamal ne kii di Daouda Mbow moom de waa Santif ginnaaw ba ñu defee ay jàng jàngat dañoo gis daal ne moom dafa dugal loxoom ci ab blanchiment ci noonu sax la ñu ko tegee loxo ci euh, talaata ji ñu weesu wante nag mujjee nañu ko jox ab bàyyip ndégéniku uculikaay bii di source a moo ñuy xamal ne machine radiothérapie bi nga xam ne nag dañu koo jëndoon jébbal ko hôpital Aristide Le Dantec dafa daal di paan te nag pourtant de ci weeru janvier bii ñu jógee la ñu ko fi daal di indi daal di koy inauguré machine googu nag uculikaay bii di source a mi ngi ñuy xamal ne mi ngi jar ci lu weesu ñaari milliards uculikaay bii di source a ba ñu ko ak waa hôpital Aristide Le Dantec ñoom la ñu daal di xamle moom mooy ne dafa am benn pièce euh, bu daal di panne euh, pièce boobu sax daal dinañu koy commandé dina yegg si ci ni mu gën a ñoom sax la ñu gis moom mooy ne machine googu moom dinañu ko defar euh, ba dina pare ci ñaari fan yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ñu jeexale ko ak wàllu tàggat yaram stade yéenekaay muy ñëwaat nag ci waa Croatie ñi nga xam ne nag démb daal dinañuy qualifié ci wàllu final ginnaaw ba ñu amee ndam ci kaw waa Angleterre muy loo xam ne nag kenn seentuwu ko woon suñu naataango yi di nag ñoom ñooy waa Croatie war a mën a daje ak waa France te it mun nañu sax fexe ba daal di gagné nag seen coupe du monde bu njëkk lii moo nekkoon mbox julikat yi li na a fës si biir colikaay yi